dalal jàmm comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag ñu ngi fii ci HLM HLM nag ki fi woote war na fee woote mu di sëtu Doudou Ndiaye Coumba Rose bi di moo Lamine Ndiaye Rose mu woote fi bernde woote fi ndogu ndogu yu am solo macha allah di ngeen ko gis en image ba tax na nag tey bi fi ñëwee dañ fi fekk nga xamante ne nag ndaanaan la bungo maan la moo njëkk xew moo moo mujjee ñëw moo gën a xew moo gën a féete xale Assane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maam Fatou euh, di leen siyaar yéen ñëpp euh, télé yi fi ñëw ñëpp maa leen nuyu waaw di la sant mais tey euh, moo di sa euh, lay am ah contentement lay am ndax Mamadou Lamine sama mag la moo tax fu ma toog si tele yi dama koy wax avant maa commencé bongo moo Lamine ànd nañ fu ne ah, moom su ma demee ba mun aar yàlla moo ma damay toog di ko wax xam nga mais yàlla dogal ma nekk le plus jeune bongo man xam nga waaw loolu mais moo min da di sama lépp moo tax ma bàyyi lépp ñëw. waaw ndax ñoo bokk HLM muy sama mag di sama lépp c'est c'est HLM kii gaañ c'est ça waaw dëgg neex sama lépp la daal moo tax ma bàyyi lépp ñëw waaw. macha allah am na solo ñu gis initiative bi rafet lool. Mhm. ne artistes yi dañuy ndogu mais dama naan weeru koor gi ndogu yi ma dem yëpp li ma gis ci moo Lamine Ndiaye Rose def ci xeetu benn ak teral gan dafa mucc ayib. waaw parce que moom moom xolam dafa yaatu. xoolam dafa yaatu macha allah moom lu baax la xam kuy maamam du Ndiaye Coumba Rose euh, def na fi lu ne euh, tarkal la macha allah moo tax moo lamin bu ma woowee affaire ndog yi dama ko ne moo ren moom mbëgg mu gën a ala dew mi que que bi mu gën a yaatu moo tax nu def mu gën a rëy moo tax euh, dañuy def cant tamit si kanam lépp si moo tax mu mu gën a yaatu daal ndog yi c'est ça. bi dëgg donc ngay dàkkantale sa bopp li nga xamante ne moo di le plus jeune bongo nga yëngal gém bi mbiru yàlla la c'est ça maa mujjee ñëw waaye man la réew mi bëgg foo su ma ko euh, je suis le plus jeune bongo man Sénégal il y a beaucoup de bongo man mais c'est pas pareil ay parce euh, nday duñu benn te doole yamu dama leen dàq sañse bongo man yi dàq leen taasu. dàq leen ambiance gën leen nekk xale. ñoom Babacar Bongo. mais mais su ma waxee bongo man yëpp ah wax naa la may wax du ma wax tur. mais su ma waxee. non mënuñu dal sama kaw. non ñoom bébé doo ñoom ñëpp maa la gën a nekk xale ñoom mag te mal la réew mi bëgg. c'est dëgg neexul. aussi euh, gis nañu euh, ni euh, amoon amoon na ay jamono ampleur bi nga amoon. Mm-hmm. maanaam bi nga fëllisee ak léegi dafa commencé wàññeeku lan la. non wàññeekuwul sax dafa gën a yokk. ah bés bi kay wàññeeku non ndax ndax barki dem laa fi def ñaareel aawa nga yeb. yab ko seet boo ko yebee di nga xam ne saykat baa ngi ni mu toj réew mi. ba tey woy kan la. kan kan maa ko way maa ko créé. maa ko way kan maa ko way. kan la. assumé rek kan la boobu man ñoom kenn yan boobu nga man la ba ma ba ma ba ma njëkkee ñëw. man daal man dama naan. Mhm. Euh, ambiance yi si réew mi mhm. man la. ba ma njëkkee ñëw ma fi njëkk a def saa Sané Madio. Mhm. mu toj réew mi. ma ñëw tarkala macha allah indi ñaareel ñaareel ka sa aaw bu dee sa yaay juraat. ma ñëw indi ñaareel aaw nga yow yab ko seet ba tey nit ñaa ngi koy salage ma toj réew mi. dëgg neexul. maa yëngal réew mi waaw euh, euh, ñaari soirée laa dafa gum euh, sama premier soirée bi maa ko defee au resto mu fees macha allah ma ñëwaat def dîner de gala parce que aar bongo warul yem rek dem programme ñu lay fay ngay dem di taasu xam nga level bi dafa war a gisoo si bongo maa fi maa fi def dîner de gala kenn mos koo xalaat kenn amul fit bi ma ñëw def ko si korite gi maa ngi génne single yaa pare na su korite gi lay génn te réew mi dina yëngu na ma Sénégal xaar. kon tool yi li muy ah? mais mais mais mais salan si maa def te toj na réew mi. waaw dëgg neex waaye sama premier son. Mhm. su korite gi lay génn. si si si korite bii na ko àdduna xaar. album waaye waaye waay. Mhm. lépp lépp mën na ne mhm. parce que ñun fu ñu toog ñu ngi ñu ngi def yoo yoo xam ne bëgg nañ mu toj réew mi. ba si koor gi ni ñu ngi toog di répété di indi yoo xam ne bu ñu wooree réew mi réew mi dina yëngu dëgg neexul non maay sama bopp non même pas mais maay sama bopp macha allah euh, mhm. mhm. ku ne xam euh, liggéey bi dafa mën mhm. euh, naa liggéey bés mën naa liggéey bés kanam. waaw waaw mën naa liggéey bés kanam. d'accord euh, waa mais euh, tey sa relation euh, ak ak yeneen i bongo maa ne. bongo maa ñëpp laa ah. sekkal jàmm waaw ñoom ñëpp laa sekkal jàmm yàlla na seen jàmm yàgg. Mm-hmm. c'est ça waaw maa leen di nuyu ñoom ñëpp. d'accord parce que en fait ñu ne yéen seen biir milieu bi dafa bëri ay siisante yaa ngi koy dund wala dundagoo ko. non man moom mënul ñàkk moom si aar mais man dund ma ko. man nit ki boo may siis sax pour man si siisoo ma parce que damay ñëw gën la ñooxu accolade la ci loo ne ba yaa ngi am jàmm ça me pa waaye sisa ça. waaw kàddu ah, bi mooy di di sant samay waajur ak neexul sëñ laay tilaa la maa ngi lay siyaar ah, papi sama DG dëgg neexul di gërëm tamit wa HLM di gërëm tamit Mamadou Lamina ah, borom ndog yi macha allah. di di ko ñaanal nit chaque année muy gën a yokk macha allah waaw te bëgg naa àdduna xaar ma nag korite bii réew mi yëngu ba pare dama ko clip waaw dama ko clip def lu musul def ba pare sama ban barki Seexul Xadim sama clip bii ay millions laa def te benn bu nga ma def ko si non su ma ne ay millions ay mais ay ay ay laa def ay million laa def lu lu kenn musul def si bungo man dama killi ba pare dama killi ba pare taxaw ne kan moo sañ lii hmm? ay millions si bungo man ni barke Seex Xadim dëgg neexul réew mi dina yëngu de maa la kenn du ko wax ku ne xam nga gëla mën danga ko dul waaye maa leen mën <laughs> am bongo hmm. am fayul ah <laughs> mag la mag la est-ce que xale yëfi is coming moo loolu yàgg na mag la xale yëfi ne dëgg neex na toog ah. non mais ki clip am boobu passé wu 500000 waaye man rek maa fi clip ay millions moi ah dëgg neexul ba mu fàtt <laughs> Ousmane Bongo Ousmane Bongo est-ce que bu yàgg sax est-ce bu yàgg. moo que moom kenn déggatu ko ci. Marème Faye Sall jomaay fi ne c'est ça jomaay. Ah, jomaay lay topp moo fi ne xam xamuñu kii Marème. jomaay aaw ak ñaareel. waaw mais je sama sama taas bi ñoom moom rek. Ah, ma ba ma génnee ñaareel ñaareel kese ak. Ah. nee waaw aawa yaay ñaareel tante rek dama naan aawa yaay ñaareel tante yee aawa yaay ah xale bu si si suñu gàdd bi dootoo ko defati doo ma laaj lu tax jomaay jomaay jomaay jomaay jomaay xoolal mooy suñu président la yàlla dogal xoolal mbokkum yaay Sonko premier ministre waaye yéen waa lii neexul eh, ankay ah, xoolal eh, jamaay ngay yab eh, yab ko seet boo ko yabee di nga xam ne mooy suñu président avancé avancé avancé